mbas bii di Covid 19 tax na ba njaayum masque nekk lu ràññeeku ci marché yi bu ñu sukkandikoo ci ña koy jaay doon na ab liggéey boo xam ne tey jii lim la mën a gañaloo bëri na bu ñenn ñi di ko jaay ñaar fukk ñeneen ñi itam ñu ngi profité ci mbas mi di Covid 19 ngir yokk seen loxo bu ñu sukkandikoo ci ña koy jaay yokkute boobu teguwul fenn. corona bi moo yokkuwaat gars yi ñu ngi wax deuxième vague bi mi ngi waaj ñëw. te corona soo souvent buy am ñu bëri si masque yi la ñuy la ñuy gën a yittewoo pour ñu koy takk masque yi nag soo gisee souvent gars yi yokk ko am na ñoo xamante ni dañ koy amee prix bu bu bu moyen am ñoom dañ koy am prix bu cher donc xëy na côté boobu noonu moo tax ñi yokk masque yi mais am na ñoo xamante ni ñu ngi jaaye cent franc am ñoom ñu ngi jaaye deux cent bu fekkee nuñ ko amee dafa xaw cher bu ñu oyofalee seen loxo euh, mu xaw a métti si ñoom lu ma gisoon mooy euh, état jàppale ñi nga xamante ni mooy jaaykatu masque yi même bu ñu lay subventionné affaire yi mu bu ñu defee 50 pour cent def bu ko defee euh, ñoom mën nañ sax jaayee masque 50 francs wala ñuy mayee masque yi. Colobane ñun 100 lañ koy jaayee. mais jarul yokku prix ndax loo xam ne ñëpp ñoo ko soxla rek te comme ñëpp Sénégal la moom. jarul yokk prix de nañ ko def cent franc yi rek ñëpp mën ko am sénégalais moom loolu moom seen habitude la lu ñëw rek ñu profité waale ci a ah, xanaa di leen ñaax ñu góorgóorlu rek te takkaat masque yi di raxasu ba set jëlaat sel yi ndax tamit loo xam ne feebar la daal ku ne sa bopp nga yaar ak ñeneen ñi moo tax ku nekk da nga jéem nga aar sa bopp nga takk sa maska bañ a dëgër bopp daal ñëpp ñëpp daal tolloowuñu quoi am na ñoo xamante ni si la ñuy bugg a profité xam nga am lu ñuy am am tamit ñoo xamante ni loolu jarul leen dara comme bu njëkkee bi nu commencé woon ba tey moom noonu la ñuy continuer quoi xam nga rek mais max deux cent wala kii yooyu am nañu am nañu koy jaay waaye bëriwuñu de yu cent yi ñoo gën a bëri ba léegi. gannaaw digle yi nga xam ne ministère de la santé et de l' sociale joxe na ko ñeel wàllum xeex mbas mi di Covid 19 takk masque da cee bokk moo tax it kenn ku nekk ci ñun war na mën a jël ak matukaayam ngir jënd masque takk ko ak lim bi wala ak li nu mu munti toll.